dañu ñëw ziar ko ci euh, safar gi nga xam ne ci lañu nekk te màggalu Touba gi nekk suñu kanam màggalu Touba boobu euh, képp kuy murit amuloo lu ko gën a rëy kon jaadu na ñu nit ñu ñëw ziar sëñ bi tàllal ko suñuy loxo sàkku ci moom mu ñaanal réew mi ni mu koy defee sax boobaak léegi xam nañ ne mi ngi ñaan mais dañuy sàkku rek mu gën a yokk ñaan xam nañ ne mu ngi jëf dañu sàkkit mu gën a yokk jëf waaye li gën a am solo mooy ab murit bu jàkkaarloog Serigne Touba da koy wax soxlaam te man su ma soxla jamono jii mooy seet nu ma mën a def ba jaam ñi seeni jafe-jafe ma teggil leen te loolu benn yoon rek la nee naa ko Mbàkke 2024 dañoo bëgg nga ñaanal ñu ba bu ñuy dellu siwaat fii ñu dellu si fekk kaddu Sénégal kon am nañu yaakaar ci ñaan yi mu ñaanal yi mu ñu ñaanal mais ñaan gi mu ñaanal réew mi. wax nga sax nga mbënd bi. mbënd mi euh, situation la bu déplorable euh, Touba mérité na lu lii ñu gis mérité wul lii ñu gis parce que ndox mi ci Touba ku ne xam na ne metti na metti na waa Touba yemul ci ndoxum taw rek. Touba dafa am jafe-jafe ndoxum taw ci taay ba noppi am jafe-jafe ci ndoxum naan moo tax ma ne Touba ca kanam ñu ñu war a félicité lañu ndax li ñu leen dénk ñu ngi ciy xar seen tànk tubéy ama ci wàllu ndox mi ñuy naan ba ci ndox mi nga xam ne day taa ci mbedd mi bu ci nekk ñu ngi ciy def seen kem kattan bi ko sëñ bi tegee seen loxo ak léegi donte nag gouvernement nee na def nañ ci ñoom juróom fukki milliar ak ñaar waaye nga def fenn juróom fukki milliards ki ma ki matewul ñaari milliards la mu def loolu lañu gën a gis day tekki rek ne war nañu xoolaat doxalin bi xoolaat surtout li ñuy wax wàllu frais de fonctionnement parce que xam nga état dafa bari lu koy tënk surtout ci wàllu doxalin bi te loolu amul ci Touba ca kanam moo tax ma ne yéene bi murit am murit du xaar ku ko defal murit du xaar état mu defal ko murit day jaayante ngir defal ngir Serigne Touba